ñu dalalee rek seeni biir kër dañuy daal di am mbégte loolu gis ngeen fii ñu taxaw nag ñoo ngi nii ci garage pompier bu ñu nee garage pompier xam ngeen ne seen émission horaire bi moom la ñuy dem euh, tournée ji ñu ngi fas yéene rek daal di dem nag Île du Saloum xam ngeen ne bu ñu nee Île du Saloum Île du Saloum nekk na ay dëkk yoo xam ne ñoom ñoo dajaloo maanaam ci géej gi bu ñu nee île mooy dëkk yi nga xamante ne dañoo nekk ci géej gi euh, foofu la ñu fas yéene rek tey horaire bi fa lay dem xooli ji dëkk boobu nan la ñu nekkee di dundee lan mooy seen cosaan ak seen aada nan la ñu nekkee di yaree seen i doom xale yi ndaxam ñu ngi leen di toppatoo jigéen ñi lan mooy seen i yëngu-yëngu waaye góor yi tamit duñ leen bàyyi ñu des gannaaw ndaxte ñoom it faw ñu wax leen la nga xamante ne rek ñoom it loolu la ñuy liggéey euh, ca dëkk ba suñu demee dinañ ñu rek euh, won leen li nga xamante ne euh, moom mooy seen rubrique kawdil plat traditionnel u dëkk bi ànd ceeg nag waa Adja Patisen mooy seen brouillon Adja li ñuy def rek mooy ànd ak yéen ngeen gunge ma du ma wet ci yoon bi tant que yéen ak may gunge dem nag jëli ji uh, suñu horaire bi ñu daal di dem nag il di Saloum. nag uh, fa nga xamante ne rek uh, jaar nañ ko lu ci mel ni nag Mbour jaar nañu Mbour daal di def tamit nag li nga xamante ne moom mooy escale muy fii di région de Fatick ñu yegg si nag fi nga xamante ne rek moom mooy région de Kaolack bu ñu nee Kaolack nag bërëb ñii ñu taxaw dafa nekk bërëbu historique bërëb boo xam ne waa Kaolack fonk nañ ko lool te dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy symbole um, Kaolack muy rek. Euh, Pont Noir bu ñu nee Pont Noir rek xam ngeen ne euh, lak ci kaw lak la bokk mu ñu dem nag Île di Saloum te taxawuñu fii nga xamante ne moom mooy Pont Noir bërëb bi ngeen di gis yëpp moom mooy Pont Noir coté bi nag moom fa la ñuy defaree xorom si dañuy continuer rek daal di dem nag fi nga xamante ne moom mooy Île di Saloum. bébé <laughs> Dia à droite kon nag téléspectateurs yi gis ngeen fii ñu jot a jaar yëpp fii ma yegg si nag moom mooy Toubacouta kii ngeen gis nag moom mooy Cheikh euh, moom moo nar a nekk nag sama guide moom moo ñu nar a xamal li nga xamante ne moom moo am Toubacouta nataal beeg culture beeg li nga xamante ne rek moom mooy xew euh, Toubacouta ak histoire Toubacouta yóbbu ñu tamit ci dëkk yi nga xamante ne am na ay île ay île waaw waaw euh, kon nag Cheikh lu ñuy wax rek mooy ma bàyyi la nga wax ak téléspectateurs yi donc man may Cheikh Diamé donc dalal leen jàmm si euh, dëkk bi mi ngeen ñëw seet si muy Toubacouta donc euh, ñu ànd ànd ak yéen su ngeen bëggee vis euh, gis Touba village bi ak histoire am ak culture am donc maa ngi fii pour loolu. boo toll si attaay bi <laughs>